l'exercice est encore plus compliqué quand la personne qui s'en va et les envahis en laisse Dix fils du Sénégal. Amnes avait une conscience inégalée de ses responsabilités et des enjeux de son époque. Son engagement était sans faille dans la recherche de la vérité, dans le combat pour éclairer le destin de son peuple en trempant la plume dans la et en mettant, sans, voix au service des sans Il était de ces bouches des malheurs qui ont point de bouche pour paraphraser le corps. À la RTS, à la BBC, à au matin, au Sesti, dans le samedi, partout le temps. Mamles l'intérêt général en banque. chez lui, comme l'a dit tout à l'heure Mamoudou le journalisme numère avec rigueur, honnêteté, sobriété, intelligence et aussi Il incarnait un apport de qualité au service de la communauté en termes d'information, d'analyse et de formation de conscience de la dans nos cœurs, dans nos esprits, une source d'inspiration est un en ces temps d'obscurité et d'incertitude. Au nom du président de la République, son Excellence Macky et de l'ensemble des membres du gouvernement, nous joignons à sa famille professionnelle et à tous ceux qui l'ont aimé pour présenter des condoléances de la nation. mbokk yi maa ngi fi dikk président de la République avec monsieur le ministre Yoro avec monsieur le ministre Seydou ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci service public de fekk fii jabootu Mame Less Camara mu ne jabootam nag jabootu deretam waaye tamit ñi nga xam ne moom la bokkal ñu bañ muy journaliste Mame Less Camara ni ko tuddee léegi yàlla def ko fi doon ràññee ràññee ko ci métier kon intégrité bi mu discrétion bi ci àndaloo waaye nangu ñu ko liggéey nangu te kàddu yi bu fekkee léegi ma Ibrahima wax ko defe naa ne mënoon na ci yéen un journaliste intégral le journaliste bu fekkoon dañ ne am na kenn rek koo xam ne misaal le journaliste mën na doon président de la République nag mais dañ ko fi teewal ndaxte jamono ji ni mu yàqu milieu média ak jamono ji ce qui est socio médiatique ci amee ku mel ni moom nga xam ne dañuy wax ne démocratie ñaar lañ koy natte ndax élection mi ngi dox li mu a doxee mi ngi dox li mu war a doxee ndax qualité de l' information ngi dox li mu war a doxee bu jutee Mame Less Camara rek jàpp ne symbole qualité yi ñëw fi tey ngir ànd ak moom ngir ñaanal ko suñu borom suñu borom yërëm suñu borom jéggal ko te li ngeen ko waxee rendre ko hommage di ko yeewee loolu moo doon kàddu yi ñu ma leen yebaloon leen gërëm ngeen sant ñaan yàlla Mame Less Camara suñu borom yërëm ko suñu borom jéggal defal ko ak yi ñu defal. Parole gouvernement.